aujourd'hui Victor exactement à mi-chemin de 2035 Victor et pendant ce premier cycle de l'émergence on l'a vu vous avez bâti les fondements et c'est important à l'heure du bilan de le dire aux Sénégalais le gros œuvre de l'émergence est aujourd'hui en place et ce gros œuvre, c'est la partie la plus difficile, comme toute impulsion. C'est la partie la plus coûteuse en investissement public. Et c'est la partie la plus ingrate. Parce que le gros œuvre, personne ne peut y habiter. Victor Mais grâce à votre bilan, notre pays peut aujourd'hui engager un nouveau cycle vers l'émergence. En effet, l'émergence économique, ce n'est pas de tout faire, mais c'est de très bien faire des priorités qu'on se choisit. ok Wadi Wani, wax qui nous ki ñu projet Sonko 2050 wan leen ñu Vous même wadi moi présente ñu présenté projet Sénégal horizon 2050 Même ma Qui ñëw top ci qui est pause pause pause Souleymane Diallo Souleymane Diallo mi mais ci biir haut fonctionnaire yooyu la bokk Souleymane Diallo mii ci haut fonctionnaire yi doon liggéey ci administration bi boobaak léegi la ana mam Thierno Ndiaye mam Thierno Cham. depuis 2014 mooy directeur de la planification PSE PAP 3 li ñuy wax PAP 3 yeen xam ngeen ko dem ngeen ci conférence yu bari manam ñetti mousquetaires yi ñom ñoo taxawon diko présenter sénégalais yi waaw xana Sonko boy tricher ak di roy mais xana nga soppi nit ñi sax c'est dire même boy satch da nga wara nek ponkolu satch un bon satch mais gaay yi doon wax

at mu ne weer wu nekk ñu ne ñu tel jour projet bi dana génn ah ku indi projet bu leen ko bu leen ko dóoree rek gars yi gars yi gars yi gars yi présenté ñu ko et li ci gën a grave vous avez entendu le premier ministre Ousmane Sonko nee na ce document il est provisoire nee na document bii ñu leen présenté parewul waa mais ñii ku ñu yàpp waa mais Ousmane Sonko ku mu yàpp yéen sénégalais yi lu tax Ousmane Sonko

nit am des choses, et puis nous ci choses. la santé dégg ay cancer dégg des diabètes, ñu ay diabète mais insuffisance rénale on a près 2 millions de Sénégalais qui souffrent d'insuffisance rénale tu as près 2 millions de sénégalais ils ont 25 25 centres la ñuy xëccoo boo leen hangar des pèlerins des leen fay ñàkkale fait un leen fay tase nañu fay et pourtant une unité pour def traitement dialyse unité pour 30 postes la koy financé 150 millions c'est juste pour dire que nous ñu jiite ci seen mbiri bopp la nekk c'est juste pour dire que nous ñu jiite li ñu ñu présenté tey jii ku nekk xam ne du plan pour soqali maçon bi du plan pour soqali soudeur métallique bi du plan pour soqali mécanicien bi du plan buy soxali baykat bi waye plan la bo xamné c'est une planification centralisée ay borom costume ak cravate ño dajalo ci bureau Japonais ni nii de faire le Sénégal mang y koy wax ci walu fruit dégg na ñuy wax waxu industrie pharmaceutique c'est bien c'est quand même une enveloppe de 95 milliards bo xamné Sénégal ne nako ko récupérer et pourtant xam-xam baa ngi et pourtant yon bangi fi mais and ak ay nit ñu cuune dégg na leen ñuy wax ne al amin lo sax la dégg et fofu and na ak mom parce que dafa bok ci suma programme dama ne réew mi buñu ñu leen bëggee dimbali il faut ñu jaare ko ci les institutions de microfinance décentralisées les IMF et les SFD parce que xaalis war nañ ko mëna a fofu ñom ñoom ñoo xam li nit ñi dund ñom ñoo dëkk ak nit ñi kon bu nit ñi amé jafé jafé ci ñom lañu wara dem mais kan moy financer suñu économie Sénégal suñu système bancaire banque yi ci Sénégal Dans le des banques au Sénégal ay étrangers ñoko mom est-ce que ay banques yu ay étrangers mom xam nañu ñun suñu réalité est-ce que banque yu ay étrangers moom nous financer suñu économie déedéet.

Sénégal oriental dañ fay bay banane. Bo démé dans le triangle bi nek Goudomp Mangarungu Samin ak Yarang Balant dañu fay bay banane. Banane bobu ñu fay bay mu nek banane de qualité indi won ko ci zone de consommation bi dong modeste. mais am ay gouvernement yu ciuné. am ay gouvernement yo xamné sen vision weesuwul jam ñaajo moo ñu nekk ci situation yi ñu nekk kon chers compatriotes mbéjum kanam borom moom moo koy fajal bopam xam leen ne li defar réew mi ci seen loxo la nekk ñi fi ne mësuñu leen dig lu ñu def et tay je suis à l'aise d'en parler ci benn émission ak pap Ngagne dama ne leen Sonko jënd na glace ci français français fa na ci secrétaire général gouvernement lu wax le français CFA est à améliorer jënd nañ glace ca xam nga dafa am ay wax ne wax ñu comprendre mais man jàpp ay waxi dof la projection croissance ñaata lañ ñu la croissance. projeté croissance xam nga Sénégal quand il a 6.5 2014 lañ ko Nous Ñom ñuy def projection de croissance diko yobbu de 6.5. point 5 ñu ginnaaw la ñu bëgg Ñi dañoo bëgg ñuy lek xeer Ñi dañoo bëgg toroxal Ñi dañoo bëgg toroxal sénégalais maintenant l'ITIDES, c'est à votre niveau li moyen des secteur informel nous avons 3 millions 000 entreprises individuelles 3 millions 000 entreprises individuelles Nous avons un gouvernement yu smart Un gouvernement intelligent un dégg naa leen ci biir document bi ñuy wax transformation li des daal mooy jël programme mu tekki rek ne léegi comme amuñu projet programme mu tekkee ngi nii def nañ ko projet bi